salaamaaleykum mbokk yi teewlu Public SN TV dal leen ak jàmm ci seen Flash Info li ci gën a fës bokk na ci kii di Pape Alé tey nag lañ ko daal di taxawal fële ca tribunal jëm ci liñ ko doon euh, toppee ginnaaw bu mu amee 33 jours ca biir prison ba daal di décréter li nga xamante ni mi rek mooy ab grève de faim ne wér ko koy daal di taxawal ca kanamu yoon pour daal di koy attee jëmale ci lu nu mel moom nag liñ ko doon toppee mooy dafa daal li nga xam ne rek mooy génne information yoo xamante ni bi rek ne nañ waru ko woon a génne ba tax ñu daal di koy yóbbu fecc euh, loxoy yoon ca ginnaaw li nga xamante ni bi rek mooy ñi di défendre li li nga xam ne mooy droit jëmale ci ñi nga xam ne ñooy journalistes yi wax nañu boson dankaf boson mais teewul kii di Pape Alé Niang daal dinay am fanweeri fan ak ñett ca biir prison boobee tey jii nag lay daal di jàkkaarloog juge bi jëmale ci li nga xamante ni mooy ëllëgam wax ci kii di Ousmane Diagne ak Papito Kara ginnaaw bi ñu leen tëjee kaso diirub lu tolloog ñetti weer jàpp juróom benn weex ci ginnaaw moom moom nag ah, treize bi di ñëw lañ leen di tegal fële ca kanamu yoon daal leen a atte jëm ci li nga xamante ni bi rek moom lañ leen di toppee muy détournement ay journaux bokk ci l'Observateur La Tribune ak Dakar Actu ñoom nag lañ leen doon tuumaal mooy dañ ko daal di détourné ba tax ñu tojoon leen kaso diir bu yàgg boobu rek le treize bi ñuy dëgmal nag ci weeru décembre ci la ñuy jàkkaarloog juge bi pour ñu àtte leen jëmale ca mbir mooma société bi di wéy ci turu SAR société africaine de raffinage dañuy seen liggéeykat yi nag dañoo daal di jóg takk ay brassards rouges fas yéene def li nga xamante ni mooy grève 48 heures li ñu mer nag mooy directrice ba nee nañ doxalinam daal neexu leen benn yoon bëgg nañ tamit li nga xamante ni bi rek mooy yokkum salaire jëmalal ci ñoom ak logement yi indemnité de logement yi ñu daal di leen koy taxawul ba tax na nag mer nañ ba futtu dem talu ne nag daal di jël li nga xamante ni mooy 48 heures fas yéene ko daal di grève teg seen ay brassards yu rouges xamante ni bi directrice ba Bougane Gueye Dany daal dinay def benn publication da ci bâche bi bukkam di xam le ne ñi di fig dañuy dañoo daal di li nga xamante ni bi rek mooy ay kontam jëm ci li nga xam ne mooy Zig FM jóge doyetulee ñu daal di jàll fi nga xam mooy Sen TV ba tax daal di def pub boobu ne bu ko neexee lu ko neex na def waaye moom mënul tax ba du am pour xeex li nga xam ne mooy régime am waaye nag lu ne mel dafay mel ni ñi di dinañ koy wedd ba mu set wecc ndax nee nañ kii di Bougane Gueye Dany dalee naa yoral li nga xam ne mooy 3,6 milliards ci suñu ay koppar te bu ko fayulee dañu koy daal di tëj completement waaye moom Bougane nag li mu wax ak li ñuy wax benn bokku ci ak moroomam ndax ne moom daal dañu ko bëgg a fitnaal xoqatal ko ndax yoralu leen benn dërëm lu mat lépp lu mu war ñoom jëm ci wàllum impôt daal na koy joxe ba mu mat sëkk ñoom kay ñooy daal di def fu ñu toll di ko dox di xoqatal ngir bugg mu dellu gannaaw waaye moom tey la gën a pare tey la gën a daal di taxaw ngir xeex li nga xamante ne bi rek mooy régime nguurub Sénégal di nguurub Macky Sall waaye nag su leen neexee nag ñu daal di bloqué li nga xamante ne bi mooy des médias Sénégal gépp loolu moom du ko daal di tax a décourager benn yoon. li ma fa jot na ruus ci seen place info di leen jox dig daje de incha allah.